la ilaha illallah ñu ngi yoon sëñ Bàmba mu joxe ci ay kàddu mu ne yoon wi ñu yoon sëñ Bàmba yoon sama yoon la ko jox ndax sëñ Bàmba bu dee yoon kenn xam sëñ Bàmba dëkk la dañoo jëm ci moom te maay yoon te loolu bu ko Seex Ibra waxee gëmoo na bu ko waxiw kenn mu ko wedd li Seex Ibra def ku ko def ku ko deful ku xàcc dootoo doon murit kon kenn mënta tàmm ci sëñ Tuubaa di jaaral seex ku di murit te Seex Ibra ko defoon ku xàcc dootoo doon murit mooy yoon kenn mënu ko yoon mu ne yoon wi nag jub na yang sës na rek Seex Ibra nee na ku àggul dangaa soobu mën a tuddoo daan ne ku ku taalibe yi dañ bàyyi suñu bopp xel te bañ a bàyyi àdduna suñu bopp maa ngi jégalu waaye ñu nutu taalibe di bëgg noo yàq suñu taalibe ñu ngi bëgg a jekku de ak seex ñoom te wax suñ toll bari na ñoo xam ne lépp lu ñuy xamee Touba ko dégloo Touba ak ñi war a wax Touba ci téléphone yeeg internet yi rek lañ koy loolu wax bii de di moom wax na dëgg su fekk waxul naa ñàkk dëgg dafa am ku ma waxtaan ma koy wax man li ma xalaat mu wax ma li ma xalaat gis nga mbiri làmb yii juróom benn waaye jàng nañ làmb ba dégg as tuq nga dégg mbër nga dégg champion ba xëy dégg roi ci arène lu ñuy waajal at nag nga topp leen ci at ak juróom benn weer di ci wax rek football kat bi di waajal boppam ku nekk dana ci am million am ci milliard yow mi leen di waajal nag loo ñuy def nga leen cee topp li fekk bàyyi woo leen te toppi sa bopp dee su la ma sa waajal mukk ci àdduna ñetteem ma sa am ci àdduna te li leen saa yi jàll ban mën a am àdduna yàlla ak sëriñ war nañu ko Sëriñ Tuubaa nii bu ay nax maam Cheikh Ibra nee na doom sant bàyyi wala wuyoo waaye nee na day sonn ci loolu waaye tey Cheikh Ibra nee na day ëmb mooy jur mooy nampal mooy bon waaye nag sant bàyyi wala wuyoo moo tax naan luy luy sëñ te Cheikh Ibra mat naa bàyyi xel te delloo ndax ñun muy yëpp dimbali nañu si fi mu toll bari na ñun nay Baay Faal lan te kenn koo mën a jàpp ci loxo mu jébbalu ci ku sant Faal ko te ñooñu bu nekkul woon ay Baay Faal lan askan ne leen sëriñ bi te kon su boobaa yoon wi amul dara te Cheikh Ibrahima fexe na ko ñëpp ñu tuddee leen Baay Faal te kenn jébbalu ci kenn ku sant ñaanal Serigne Touba ne ko ndaxte damaa xool ci mbooloo mi am ñu ñëw seen kaw ñu góob ci seen biir dara ma bëgg nga bàyyi ma ma dox sama diggante sa diggante bi nag boobu ñëw yem ci Serigne Touba nangul na ko ndax li tax mooy bari na ñoo xam ne tey jii rek ma gisu leen dund waaye kenn ci ñoom du Baye Fall dañuy Baye Fall la sëñ wax ñaari kàddu daal du sëñ maam moo tudd ñoo ngi koy tudd adduna du yàgg mukk ci adduna ci adduna ba fii wax bu maam Cheikh la nekkoon adduna Cheikh Mouhamadou Mountakha doon xalifa sëñ Tuubaa te mooy doon sëñ wàccuwaay woowu rek lan am ci yoon duñ ko weesu mukk ci adduna di taalibi sëñ Tuubaa yi ndax alfa ba léegi lu sëñ Tuubaa newoon mooy moom yoon wi jiite waaye nekkoon dañuy moom yoon wi jiite bu Cheikh Mouhamadou Mountakha nekkee jiite yoon wi Cheikh bi Mountakha bu ko defee nun itam ku nekk li nga li nga am ci sa bopp dalaa war a doy nga jàpp ne mooy sa barsàq mooy sa bàmmeel gis nga fi toll kenn koo xam ne ginnaaw miir bii ci sama ginnaaw bu fekkee ne mënuma koo xam kenn ku nekk ci nun sab xam-xam fa mu toll ci sa ginnaaw nga xam ne li ci sa ginnaaw mënoo ko gis xamoo la ci ginnaaw loo amul fit man koo wax ci yoon Mouride da ngaa sa bopp rek. waaye xam nga ni warul nekk mën ngaa arrêté ku nekk la nga xam xam nga fa nga mën a yem am nga ku jàpp ne doole sëriñ bi mbaa jéggi diw war naa fi nga xeeb diw da nga yàqal sa bopp. man góorgóorlu ci dooni taalibe Tuubaa gee la fi lan fay wane nit ñi di ko gis ñiy fexe ba fu toog bu fa jógee ñu dij fa seen morom ci rajo wala télévision. bu nu waxee ba noppi bu fa keneen toogee waxaat leneen nga xam ne képp ku bëggoon ci la nga wax suñ déggee ka lay tontu dana am naqaru toll noonu ci lu ñu wax seen jubaak yoonu murid soo jàppee ne yaa ngi defal yoonu yaa ko yàq ñooñu defaluñu yoon bi dañ ko yàq barki seex ñu nekk Touba yor seen i télé seen i caméra yor seen i internet lu bon lu ñu gis te ne la nekk noo ne ko te xam ko yu baax moom junni ca yooyu te duñ ko wane. lu yàq ñoo fay ñoo ñoo a defar daa am ku ñëw ku sëriñ bi jox mbir mu gis ca lu xamul woon mu jàpp ne des ko war a defaraat ñu ñëw ci ku tàddee ji ñu ne xanaa daa am lu war defar mu ko mu mat a defar moom yaakaar waaye ñi mat a defaraat mooy ñi nekk Touba di wane luy tax nu muy xeeb ak di nu tooj ak di nu xamal lu mu war a xamal ndax li sëriñ Touba bëggoon am na ko dëkk boo xam ne kenn du fa gis kuy dox di dugg ci àdduna kenn du dox géej gi si lay sàngara yàlla moom jaam yi su ko nekkoon ñetti téeméeri mètre lay def ci kaw ku faatu mu aj la fa di la tàbbal sawra te du la weesale sa kër ngay jooy ak a siit say ko gis ak mu toll nii su sa guru wàccee da nga koy gas yiir bu néew bu ñëwaatee dañuy fekk ne def sax jël na ko mbaa suuf lekk na ko mbaa lékkee su ko roo su ko yàlla suñu borom di alal baalu ko ñu doon baat isaam weneen melokaan la yow waaye du yor jëmmi doomu aadama ji nga xam ne yeneen yàlla moom la sallallahu alayhi wa sallam ci sutura tax kon war na war a sutura tax bu defee nan góor-góor ci taali seen isaam nii ñu def lu baax la ndax yow président daayira Serigne Touba bi nekk Paris dëkk bi gën a rëy ci dëkk yi ci réew mii ñu ne la yow njëriñ la. waroon naa man sol ay daraam toog su ñëwee ñu ne président daay baa ngi nii te des bu koy waxal ndax am na fu ma mu la xasuwaay dem ci toilette bi euh, xam ne li ko war murid bi nii jëpplu taxul ñu jëpplu de te jëfam moom lay ñeel jëfi murid yi moom lay ñeel murid seen Tuubaa yi te doo dara ci yoonu seen Tuubaa bi murid nangu jiit nga jiitu ñu topp sa ginnaaw te seen Tuubaa tax ñu ne la yaa ngi wutu Sëriñ Tuubaa ci kaw suñu kanam loolu defal murid fayoo leen kenn amul bay kon lii mu def lu mu la waaye nag ñu bari war na nooroo ci moom ndax suñu ñëpp defee defal rek di am ci am waaw bu ko defee wax dëgg yàlla euh, bu ma tawee ci njiit la Cheikh Mouhamadou Mourtada mi nga xam ne daal du sëñ maam moo loolu dafa am lu ma ci bëgg a leeral Serigne Touba daa séddale cër la ku yàlla bind te Serigne Touba séddee mënoo koo xañee cër cër yàllaa koy séddee yeneen yi ci des tolluwaay xew-xew day xëy na bu waaw des koy ñàkk lépp loo xam ne ak lu la àndal su borom nga koy jox sëñ Muntaxa te muy juróom juróom la sant dañ ko bi te sëriñ Fallu soxna aw Busa sëriñ Musoobe ak maam Jaara bokk leen sëriñ Xaadir soxna Amintu Busa sëriñ Musoobe ak maam Jaara ñoo bokk leen te ak yow ñii ñu jox soxna Jaara di sant Busa di bay juru sëñ Tuubaa kenn ci ñoom kenn ci ñoom lu tàbbi ci moom xalifa sëñ Moussa maa ngi fi boobu sëñ Mbacke Moussa ngi fi lu tax ci ñoom sàmm bu demee Porokhane di siyaar yi maam Jaara ci ñëw ñëw siyaar yi maam Jaara te ñooy soxna Jaara loolu cër la sëñ bi maam sëñ Cheikh Mouhamadou Mountakha Cheikh Mouhamadou Mountakha def na mu yéeme bi muy ñëw fii tey leeru sëriñ Tuubaa fi ñëw ci wàllu ñëw ci moom nga ñëw kon yow mooy yëpp moo ci yëpp ay daal ci àll njabootu Sëriñ Tuubaa yëpp moo ko ci gën a néew te xam nga ne bii Sëriñ Tuubaa sédd na ko mu bàyyee li ñu des li ñu des moo tax nga yomal fi am li fay yoon moo tamit dox àll bii ku nangul Sëriñ Murtadaa nangul sëñ Maam Moor loolu yàlla suñu dogal borom dogal moom la koy jox cër bi moo ko cër ak cëram Sëriñ Tuubaa ko sëñ noonu taalib yi nag noonu dafa dul suñu taalib te bàyyee suñu bopp te loolu Seex Ibra Faal ci ak taali nangu wala fi gët nee na jël na ci bañ Seex Ibra lépp am na ngoo ko may nan rafetal suñuy xol rafetal suñuy taali naan Seex Ibra Faal nee na ku bëgg yàlla suturaal da ngay def ku bëgg mucc da ngay jël ku bëgg a noppalu nag da ngay am taalibe bi ak amul taalibe boobu amul taalibe bi mooy jëriñu taalibe waaye bu suñu jëmul ab taalibe te moom góorgóorlu ci am ab taalibe bi yal na ci yàlla dimbale ci doole Sëriñ Tuubaa seet te ñu toll def lu baax jënd woon kenn ndax ñi ngay waxal jëruñoo waxal ndax li nga ñaan yàlla tey sàkku ci yàlla li Sëriñ Tuubaa wéetee fa Tuubaa Seex Ibra Faal wéet ci di ko liggéeyal ak mag ñi Seex Ibra Faal fekkoon télévision xew téléphone xew kenn xamul ne xoolal fa Tuubaa nekk ak fa nekk ak ñoom ñu ko nga xool ab àll ak ub gott ñu fa wéet kenn wéet ci wuñu woon fotoowul leen filmewul leen ñu xëy kay dañ àdduna lu leen dajale ba nga fa nekkee daa am suñu yoon si moom nga gis la muy def nga xam ne dëgg ko ci mu daj ci adduna sëpp gis leen booba am na ñuy nekk ci rajo bi télévision fi mu toll bu génne woon image bi bu ko gis ne kii ko te kenn du ko xam kon saa bi yàlla ko moom bu ko defee nit ki li nga bëgg da ngay wéy fi dëgg yàlla doon si seede nga sàkk ko fi moom te jëmmam tax te nga rafetal sa xol dana ko doon taal waaye nan bañ boobu daal di ne ku nekk da ngay ñi nga yëg ak li nga am ak li nga mënal sa bopp loolu ngay jàpp muy sa taalibe bi bu ko def gis dana ñëw gën day ci fekk rek te denc moom bu koy def yaa ngi wéetal sa bopp xam ne denc moom loolu def bu mu teree man ay misaal moo xam ne gën ci démb laa waaye loolu tax maa ngi maa ngi leen di sant nag di leen gërëm di ñaan ci doole Serigne Touba ak naan Cheikh Ibrahima yàlla sama borom defal leen tawfeex mbir mu jub ak aaju faj ndax kat fu ñuy wax ibis porte pante falaa nekkoon woo ñeenti nit nee na bu bu déwénee ñu ñëw fii defal fi Seex Ibra Fall bis bu sax ba léegi ñoom hôtel bi war def hôtel bi nit ñu bari dañ fay bari tax tubaab bi ne kenn doon fi ñëw ndax mënta lu kenn mu waroon di utiliser essentiel yi kii ci sama loxo ndeyjoor bi Omar kër gi mu yéewoon nekk fa ku tudd Idrissa lii fa laa woote ñu ñëw ñu béy ñu douze ma ne leen bu déwénee danaa koy def si damaa def rek laa wax dem ñu koy wàññi ba ma ñëw des boobu def lu mu woote sama gërëm du ci dem su noppee lu ma ñu ñu sant leen baa ma gërëm leen ci lu tax bu déggee nii ñu dellu si te wax bu nekk muy gën a jëm kanam di jox nit ñi ay sas yi deux cent euros ñëpp di ko bay te xëy kenn ku nekk la nga am seen tubaab yu mën mënul ma kenn dara am ñu koy lu jiitu loolu woote daanaka woote ci biir dëkk bi ma ko defee ba woote nañ ay woote woote woote waaye li jëm kanam rek man laa bàyyi keroog ban ko tàmbalee damay jaar ci tur ku tudd sëñ Ibrahima Kandji la amul dëkk bi damaa woo ci numéro privé ni ma sëñ bi ma ne ko am ah, ne ma da ngay woote fii ci France loo xam ne day doon ñett wala ñeenti fan ci weeru koor dama naa leen bisu maam Cheikh fa mars mu bëggoon mu boole mu doon lenn ma ko loolu suñu Cheikh Fall Khadija yi di doomi Cheikh Mouhamadou Moustapha moo ko wootee Cheikh muy Cheikh Ibra gisee suñu Tuuba kon alalu jàmbur la ëllëg ci moom xel yàlla suñu ku nekk da ngaa war a dellu ci moom te ku dellu suñu borom di yëpp lu waa ñu ko loo fàggul adduna da xam ne yàlla adduna mën na koo dégg de barki Seex bi ñu woo ma xamal nañ ma woo téléphone yi ndax man naa dem ndaw ma woo ko téléphone wax ko ko kii la ma wooyee maa ko ko turam woo ko ci fii woo ko ci normal mi ngi jëm kanam ma ne ko soo demee Marseille def fa dara ñu ne pare bi ñu def soo delloo Marseille kon lu may leen ci kenn ëppale man yàlla mu ma ci ëppale kenn ci doon yi xaatim wutuma ci gëm wutuma ci sant wutuma ci barke wutuma ci kenn mosunoo màggal pare doon ne yàlla si kër kenn du góor du jigéen du mag du ndaw kenn ba léegi nag dina ñëw fii ci teewlu mu ngi defoon rek di jëm kanam kon ñeent ñu tax ñu defoon maa ngi sant yàlla ak sëriñ Tuubaa seexi maa ngi dem sant bokki taalib bi yi nga xam ne am na ñu jóge Suède Suède am na ñu jóge Italie am na ñu jóge Espagne am na ñu jóge Angleterre ak ñu jóge ci biir dëkk France yi maa ngi leen di sant di leen gërëm di nga xam ne yéen a woote si leen ndax kat bu fekkoon ne li seet xam ne li yëpp ci man laay woote kon. bu ma dalal mën na maa woote ci sàmm bi ñu màggal ndox bu bees bu doon bàyyi faa yi jàpp ko ñu ngi ci sàmm li nga nekk jëm moom ci sant Fall moo ko fuuf te moo waral seen tubaab moo waral seexam kon bàyyi faa yi jëpp seexam waxuma laa seexam yi ci lu dara seen tubaab seen tubaab moo baax seexam Fall bu fa gën a tànn seexam la toog jëf ba ni ngeen taxawoon ni mu seex bi nii yàlla leen sëñ Tuubaa ak maam seex bi taxawoon nañu di jaay suuf la ñoom ñoo di ay kilifa bokk ci sëriñ Tuubaa suñu sang la ñii fi ñëw suñu naaw ñu bokk seexew bi kenn sëñ daam ñi toog suñ seexew bi benn way gërëm ginnaaw suñ mu am te moom a wax ci njaboot seexew bi boo ko fi bàyyi woon mooy koo jërëmee doon xam ne seexew bi te mu ngi nii toog nañu kenn ci sama kanam dama ko bàyyaat rek maa ngi ko seex sëñ Aliou mais ak sëñ Cheikh naan ñun yu doomi Seex yu naan ma ëpp leen at mu jox ma cër sëñ Cheikh nii ci doomi sëñ Fallou Fatima koy juróom fii la wàccee bis ni dem te douze te treize te bis bi bu ko defee maa ñoom ñoo bokk Seex Baye Sakk ñëw na fii Serigne Assane mu meññ Mawtaale mu meññ Ndao mu meññ muy wéy ci man mbirum yàlla lu doy waar la maa ngi jékku Serigne Ousmane nekk na si Cheikh ni léegi Serigne man nga dëkk fi mu wax Idrissa ak mu jot dañ ma fay defalum ngan di ma fa defalum siyaar man moom maa siyaar su ma demee Italie fu mu mën a doon dañuy dajaloo di ma siyaare di ma siyaare suñ seet ndigal day ñëw ci bërëb ñu koy siyaare suñ farlu seen mudoo ak te am suñu baay yoo xam ne seet naa ñu seen baay bi su leen ko defoon ki xamul nag day jàpp ne kon ñoo xam ne xamul dara ya fekk non yàlla lay mbiram xare man xam ne bu kat léegi mu waroon xare bu seet ndax ñi seet bi ñu seen baay te ma mag leen ëpp na tànn baay ñaar ñoo xam ne maa leen mag te ñoom Cheikh Ibrahima ñu seen maam la ñu te ñaar ñi yàlla xanaa ñooñu di génn at nga jeex ma door dem kon mën na doon fan yow ñu des kon bu ma doon tànn Cheikh bi jaay sëñ moom nga doon gis kenn sëñ Cheikh di ngeen ñaanu kon suñu bàyyi dañu ñu yëre xam ne ñun lii war nañ cee amul jënd duñ doon xalifu Cheikh bi bu mën kon mu ko mën a bàyyee ki ñu jëru ëllëg ak ki xam ne day jëru mën naa jëru bu ëllëgee kii jëru ëllëg war naa mën a bàyyee bu mu jëru loolu la bu leneen xëccu wu jëru xëccu wu leneen sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma sëñ Mbacke Mbacke sëñ Moundou sëñ Dieng sëñ Aliou Mbacke sëñ Moustapha sëñ Basir li mu am ci yoonu Serigne Touba yi bu leen jëloon Serigne Touba yi doxal seen diggante xam ne seen i wéy ñu leen ñu xañ leen ah kon ñu wax leen ci. ginnaaw nag sëñ bi ndaw la foofu ci lu foo yóbbu doo ko am nga ne souvent am ñu jëlewul àdduna keneen ci sa kanam ba sa digg bu la baaxee bàyyi la ba nga mën a doxal dara ndax man de su ma deful lii kon da ngay ñàkk ginnaaw lu ma fi toog ba doon seetlu su ma toogee di njëkk nit loolu du jël loolu yëpp la moom itam dañoo mën lu ci mos a bi yor moom fan ko joxe laa koy jox seen Cheikh Fall jëm ñoo koy dugal wala ko loolu ñëw jox moom cinquante euros laa ci mas a lekk su ma xooloon man maa ngi gis ko sant Ndiaye wax na fii ngay kii Cheikh quatre cent cinquante euros lan la ci njëkk a jébbal ñeenti sëti Cheikh Ibrahima Fall nekk fa ma jox leen ku nekk cinquante sëñ Aliou Fall nga fekke woon na ko ak soxna ma am suñ si bu doon fekkee mu des deux cent cinquante ma barkeeloo cinquante yi yónni sëñ bi cent deux cent ba daaw ba daaw deux mille treize jooju ba daaw daaw ji lu fi ma jox ki fi nekkal Cheikh Ibrahima Fall bu ko defee loolu laa ci kon su ko bàyyi jugee di wax ko nañ dund yàkkam ci bis ba ñu la public parole di ko defal Cheikh di ko defal Cheikh bis ba may def fa Ndakaar lan war a def yàlla suñu borom dogal mënul ci kaw internet bi lan a def ku ñuy wax Daawuda Diouf ak Aliou Guèye ñu ngi ab saal lu mat ñaar fukki gone nekk ñu rey seen ñaari xam direct ba ko mën a def ndax mu ci mu ñu ko def ba ñu ne ba deux heures jot ñu ngi Sénégal bi amuñu tërëkk ñu sikkar ci déwén ñu laaj ñu ci ndigal ma ne leen liggéey bi ñu fa màgg waaye ministre toll fii di ci toll la kon su bis bi ñëwee dee leen ko def foofu su ma kenn Cheikh Ibrahima tax tamit seen jëm ñu tàmbali ko daaw daa man laaj ñëwoon seen njëriñ jiw bii ma ñëw ko ne leen na leen woo woo leen waxtaan leen waaw wala déet mu dem di leen ko waxtaanal tey jii benn bis bu ñuy defal Cheikh bi bu ko ëpp biir baaw ko te mosuma ko teewee mat nañ seede Omar bi deux mille treize deux mille trois kër ga doon jigéen te Ndakaaru fa laa luye woon wooteel fa seex bi bis bi ñu nekk fa ñetti at xale fa ñu yóbbu ko ci stade kon nag seede la ci am na lu ñuy wax jaar bi ñu ngi fii kuréelu sikkat bi ñu def fii ko def seex bi boobu jaare ji ñii ko def wax naa ko jaaxal daa fi man ne ma nu mu bàyyi faal yi bu ñuy ak ci mbir njàng mi doon ñuy xaj ak cër ma ne ko xanaa li ngeen di def yàlla dugg mu ne ma ah kay faam ma ne ko lépp boo yaakaaree seex bi ba noppi yor melokaan boo xam ne kenn bëggu laa la sa bopp ngay nax ne ko xoolal seex la foto bi def ba noppi ànd ko mbooloo xoolal nan nga ne roy seex bi nga roy waaye nag jëf yàlla tax. a mën ko jël te ragal wéetaay te mu wóorul saal te demoon dell si kër si dem mu ne ma su ma ko fa defee man si damaa jàpp man mu rëy saal mu ne ma kon gaañ yi mu ñëw mu na dem wéet saal ku ñooy kuréel bi ñuy tudde yàlla di gën a léegi bari te ñun ñu sew ay jàngkat yi liggéeykat rek fa def am na koy Italiye lejj Bamba mu ne falaa ko waxe woon ñaari at yu ngi ne ko danaa def Paris gii ma nga neen toog Dakar pistolet bañ fa seetlu loolu bis maam seetlu Fall mag bi benn pistolet bi ku bët dina ma moom bu ko defee la ma ci jublu xaw ma ndax sama jublu laay def jublu jàmbur laay def mu si woote loo xam ne bu koy woote bu wax lu ci rajo mbaa télévision ne maa ngi woote nangam bu nit ñi ñëwee bu leen wax lu tax mu dellu si waat bu jàllee bu leen bàyyee loo xam ne moom la ñuy ñëw tax ñu dellu si waat su ñu ko jàpp rek nga leen melu kon gëm woote bis mooy woote bis bu waaye faatu woon it ñii xanaa moom daa war a bind kon nag ñi koy defoon te jàpp ci liggéey bi naan ci yam luñ ci dara ku bàyyi woon ci ñoom tey li gën a baax mbir mu fu dee te du yàqu ki am taw bi mooy ki tàbbi ci biir di doxi sax maa ngi defal seen daal di fekk moo ci bu defee maa ngi euh, yi nga xam ne dama foog seen bopp nit ñi di wut métier ñoom ñu def jàng xasida Sëriñ Tuubaa yi métier ëpp ñu mun ak cër ci xasida yi ndax ñu koo jàng ndax damay wax ni ñu jox la micro nga jàng fanweeri bayit wala juróom ñu naan rajo nga def juróomi yi door a ñëw nga jàng tuddee sa bopp jàng ko xasida xaj ko kii jàng ñu kii bi da ngay nax sa bopp bu ko defee loolu du njëriñ loo xam ne bari na ko tey toogee ci kaw sëñ Tuubaa bu laaj kon nag jàpp mbaam sëñ Tuubaa yi ñi féetale seen bopp dina wax cër bopp leen yàlla cër ak sëñ Tuubaa waaye gënuñ jàpp te saa bu ñuy wax ñu ne gën a xam la ñuy wax ko bu ñu ne xam-xam la ñu ne gën a xam la ñuy wax ñu ngi seen wet di waxum juróom-benni at mu jàngale ba nga am juróom-benni at muy fukk ak ñaar mu jox la certificat nga teg ci ñeenti at mu jox la gëwël nga teg mu jox la baccalauréat ñu naan ak trois quatre de dix ñi am doctorat soo ci di moom ci yoon mu ñu jàngi Arabie Saoudite Qatar Bahreïn Oman boo leen def loo gis ba mu wàññi mu xadimaat te Sëriñ Tuubaa mi ko def amul certificat bi kon jàng dafa la xam te inna xaala allahu ma lam yakun wala yakun abadan li mumkin bari ni ñu koy firi waaye man bokku maa ngi ñoom aw gis ndax mu ko bokkul ak li ma jàpp ne na ko bañ a wér te nga li gën ci yoon wax loo ne ki ko wedd su gëstu woon su su ko weddee suñu xelam wala xolam it su génnoon gis gëstu man jëlee di dina wax te lii nga bëgg a wax kenn mën na gëstu ci Google beeg YouTube internet bi fenn ci àdduna ba gisee kenn pour Serigne Touba lii sëñ Tuubaa du arab am ay as bokk na ay continent der bi der bu ñuul der bu weer wolof la nam arab la bindee loolu dafa kenn ci at bi ba noppi ñu bëgg na leen sëñ Tuubaa bind kenn ñu mënu koo ko toll ni soxna May Kabir di doomi sëriñ Tuubaa ñeent fukki kaamil jigéen ñi ko bind ba lislaam ñëwul alxuraan ñëwagul kon mënta nekk boobaa tey jii kenn yooyu man man sa jëriñ téeméer sëñ bi rek waaw bu ko defee nañ góorgóorlu ku amul kenn da nga koy fomm te taali bi jii kat ñor ba noppi di fekk ci leneen lu dul taali bi taali bi day am njëriñ lu maam Cheikh Ibrahima Fall doon maam Thierno Birahim doon maam Cheikh Anta doon ku ko doon wax ngaa sant yàlla suñu borom. xam ne lu rëy nga am te loolu moom la ko yàlla séddee waaw sëñ bi wala moom nit taalibe te njaboot bi ñëpp bu njabootu àdduna njabootu sëñ bi nekk fii ñoo ji yoon kon njabootu sëñ bi ñun ku nekk ci woy ji wala meññ ak njaboot gi am bu boo am dara ñii mu tege ci kawam ñun suñu gàncax ak suñu àll mooy sëñ borom bi nangoo seetaan nag ay saay-saay dégg ci kàddu yu ñaaw yu baaxul dina ko tegal ci njabootu sëriñ bi ba noppi mu wóor ko ñu ci xalaat ak wax noonu mat naa seetaan de te kat des na léegi bu néew ñu nekk ci lu mu war a nekk ak yow sëriñ bi lu mu ko war a wax ñun dañu ñëw fajal ko bopp ndax suñu daal yoo sax dégg loolu kon nan góorgóorlu ci ak taw yi yàlla na sëriñ bi jëmleel bopp yàlla na jàppal boppam yàlla na am taw feex yi Serigne Touba àdduna ak àllaaxira barke Serigne Touba maam Cheikh gërëm nañ góor ñi gërëm jigéen ñi nan ñeen ndaw yéen ñi ci xasida yi ñu sant ñëpp di leen gërëm ak ñaanal taxawaay bi ñu leen taxaw ñu jàppale suñu ci bisu Cheikh bi gis nañ ko réew ci ñun sant nañ ci yàlla ñu jël ci ñoom ñëpp sant nañ alxuraan yi kuréel kat yi sant nañ kuréel beeg yii maa leen téye woon ndax damaa bëgg ngeen mujj lu war a njëkk daa war a mujj dinaa ngeen di njëkk kon yéen a war a mujj te ñii tamit eh, fekk si leen des leen war a teral ndax ay gan gan des ko war a teral moo taxoon ñoom ñu war nañ la ngeen jox ay cër ñu jàng bu ko defee suñu jàng yow noppi mooy itam ngeen mën a jàng yéen a nekk mënuñu ko woon bu dara waaye su su ma waxee ba noppi te ñu sa mën wax

waaye nga déglu ko loolu suñ njëkk ñu bàyyi fa ñu jox ko bisu seex bi te dëkk bi dafa am lu mu baaxoo teg yëral ndax waxtaan moom tax ku déglu doo doo jox ñu àddi bu ko defee damaa bëggoon rek moom loolu baax na ma ko man booloo mi dem na waaye masaaka ñu joxoon lu ko àddee seex bi ngir jëm seex bu fànn. bu ko defee ñi ci des lu leen bokk tali bi yeewee yeewee leen waaye moom ak yeewee waaye jox moom at yi ngir jënd seex yi bu ko defee bu déwénee nii ku ngeen na ma ci oustaz mi war na ma ci sëñ Bamba waaye ginnaaw moom ngeen tànn rek ñu mën seex yi nan ko jox at yi ngir jënd seex yi saan koy sàkku ngir jënd wa rahmatullah la ilaha لا إله إلا الله لا إله إلا قلت بين الأبان ربنا لا إله إلا الله